man mi kun fayakun yalla may na ma xam nga nu ma may moy nit ki bu fekke da nga ñaan yalla nangul la sa ñaan gi yalla may na la kun fayakun parce que bo ñaané ba nopi bala ñaan nang faaw yalla da nan kun comme yalla neena kun rek degge ko nonu deggel ne rek yalla may na ko ijaabatu manam yalla nangul nako ay ñaanam fimne man suma yalla nangulé sama ñaan man na yalla may na ma kun fayeku fi mu ne tey su ma ñëwoon ci Serigne Mountakha ma ne ko ah Serigne Mountakha yow de say kàddu dafa am njariñ lool te dama bëggoon sama daara ji ñu defaral ma ko léegi nag dama lay ñaan ci sa kàddu googu nga may ma ci benn kàddu goo xam ne nga may ma kàddu goo xam ne dana tax euh, murit yëpp defaral ma sama daara ji songal ma daara ji sëñ Mountakha ne acca kàddu go jib na man suma génn lu may wax dama ko ñaan sa kàddu gilaa laa kàddoom gi laa ko ñaan su ma ñëwoon ah sëñ sëñ Muntaxa de ba ma ko ñaanee kàddoom daf ma koo may kàddoom la ma may maanaam kàddoom mooy ba mu ne murid yi def leen ñu def loolu may na ma ko léegi nag yàlla kàddoom googu di kun fa yakun may na la ko ci nangul gim la nangul sa ñaan parce que balaa balaa ñaan ngay ñëw ci yow bala ngaa am ñaan gi faw yàlla danaan kun innama amruhu ida arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun kon loola noonu nga koy déggee imma mu nekk loo xam ne dañ ko taqdir mu yaaman lahu kun fayakun parce que maanaam ci même téere bi ci même téere bi bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wahdahu wassalatu wassalaamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa wala ñoo ngi nuyu mbokk yëpp leen ziar ñu ngi sunu borom mu boole mun na bokk àndaale ci mbokk bi Abu Jandal di ci wax loolu boo xam ne xaw na ma bett lu ma bett na ma lu tax ma bett mais damay xool ci benn wet gi ne mbokk boo xam ne da nga da ngay woote wa sunna xam lenn ci sunna lan moo la woon a mën a jaral ngay tabb ci caaxaan yi ngay tabb ci mbir yu suufe yi lan moo la mën a jaral ngay tabbi di layal ay caaxaan yoo xam ne xam nga ne caaxaan la ndax lii du sax suba man li ma li ma li ma am njott bi ma ci moom mooy dama bir la mbokk mii moo gën a xam li mu leeral caaxaan la kon lan moo ko war a mën a jar bu ñu leeral caaxaan yi ak xam gu mu xam bu baax ay nit yoo xam ne moom ak ñoom ñoo bokk der bokk lakk bu ñuy lakk ëppal gu ñu ëppal ci nit gi muy jéem a defaan ay waxam ci ay caaxaan ëppal goo xam ne ñu bare gàllankoor ne leen seen seen diine ëppal goo xam ne nit du sikki sàkka ne dañ koy teg fu romb fa ñu teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenn saa ñu teg ko fu romb fa ñu naana fu romb fa ñu teg borom bi bëgg ko bugg ko tar bëgg ëpp yóbbu leen ci duñu waa ji du wax lu ñu ne du noonu waa ji du def lu ne du noonu bal la ñuy wër mooy gërëmu waa ji mu xam ko baax moom caaxaan yooyu nga xam ne ku xam ne xam nga daray sunna li nga xam ne aqallu shay li ñu war a defar sénégalais yi mel noonu mooy fexe su fekkee duñu ba waa ji te mënuñu koo baax ñu fexe ba yóbbu leen ñu daal di jël waa jàppee koog nit jàppee koog xam ne day wax yenn saa yi comme ñëpp yenn saa yi wax lu jub yenn saa yi ba nga jël waa ji mbokk di ko gam-gam léegi yàlla ak yeneen taam moom xam loolu ne loolu mooy li li ndaw gën a mën a mën a defar Sénégal ay mbokk jukk jéem a defar loolu jël ay waxam تكوتي بالانس القران والسنه وانا وحدي جوينا اقل شيء لي نوتي وخم موي يعني وحدي ني وخلا جو خامني نقول لن دم لا من يوبني نتي غرير نانكو ليرال مو غن خامني واجي خوس نتي تصوف خوس و خامني جليت نيوم اي عبارات جو خامني من يوب نيت ني تي اوبل غوغ ما جيتال تي وخم لولو باخ لولو دمتي كو ندي di jéem a gàllankoor mbokk yi woote nit ñi ngir ñu daal di jël kii ak ñeneen ak i moroom def leen ay nit yi kese jël yàlla teg ko fenn kennal yàlla kese topp yàlla kese mu xam loolu mooy jubluwaay mbokk yi loolu mooy seen seen doxalin mu ñëw di leen gàllankoor ci ceexaan yu mel ni dam naan nit lan moo ko war a jaral lii ci kaw suuf ndax lii muy wax di bis ko tegee ci balas alquran wa sunna subhanallah al azim da ngay fekkoon ne sax ab suuf yi moo koy défendre bu xel da ngay yéem ma nag koo xam da nga ne moom damay wooteew mooy sunna lay wooteew lu nag mu génn ci ci loo xam ne yëguma ko waaye beneen wet gi lu tax jaaxaluma wala boog bett ma torop mooy dama gis depuis quelques années wala quelques mois mbokk mi dafa jël benn yoon yoon maa gis mu jël ko depuis ba mu commencé di yalwaan di wayaan ngir lan ci turu alquran nag maa ngi bàyyiloo xel mbokk yi mooy benn mbir gis nga foog ñu foog ñuy waxante dëgg mooy ibbi daara lu baax la waaye nekkul lu war rawat na suñu réew daara yu bari nañ trop su waroon sax nag ku ko munut yàlla teguloo ko rawat na loo xam ne warut ku jug ne da ngay ibbi daara doo mën la ngay def pare waraat di chantage nit ak di yàlwaane ki wayaan ci loo xam ne soo ko seetantelee bu baax a baax a baax lu bari ci la bay gis ñenn ñi li ko dafay gis ne lii ñuy yelwaan la cay ñi koy ëpp ñu fa jariñoo ñooy ñoom paa sax alquran pas ñi nga xam ñoo cay jàng jël yalwaan jël kër tabax def sa tur ne turu alquran la loolu dara seetaan la jël yalwaan naan alquran moo tax ngay def dimbale nit ñi jël tabax jël ndongo daara yi defal leen ay éponge toog fële lu jara taxawaat seetaat la yow nga daal defal sa kër fële ba mu sa wet gam neex ne ci tur alquran lu jara seetaat la mais ala kulli xaal lu ci mënti am li pire mooy nak su demé ba yobbu ci mbir yi mooy di neexal waa bidaa di jaxasoog ñoom du dugg ci mbir yu ñak fay la waaye de lool yëmatu ca légui nak ngay ñew légui di défendre seen i réer te ku lu wax ju baax xamné défendre réer gi amna lu ko waral ndax da nga bëgg ñu daal di eh, ñu ñu daal di financer dara da nga bëgg ñu jàppale la soo leen won da nga bëgg ñom ñu joxé nga ne léegi kon naa jaar fan ñëw daal di defan ay caaxaan lan moo ko war a jaral jullit ci kaw suuf wax dama ab sunnit ay caaxaan la li ma ne bettu ma ndax gisoot naa beneen vidéo mu cay wax ay gént ay tappale gént yoo xam ne ki xamul ma doon géntu na gént naa xaw ma kooku xam ne turam sëriñ boo xam ne moom moo nekk xalifa général wala boog turam mi ngi tudde turu yonent la nekkoon na xalifa général xaw ma naam ma gis ko àjjana xaw ma ay lan mu jël ceeb ay waxu ay waxu yoo xam ne digne ci ñi ñi eh, marketing ci al alquran gis ngeen seen daara yi ni ku ko mën nga ibbi ku munut nga dem kenn sant sant la ko nga toog jàngal sa say say doom alquran jàngal seen waa ko alquran su la neexee fekk alquran moo tax jug nga woo leen seen néeg di leen jàngal waaye ku cukk ne da ngay tabax daara sonal nit ñi yalwaan gudut jeex rawat na fekkee ne yalwaan gi nag dafa yóbbu nit ñi ci lii affaire caaxaan yi nii di defan ay réer defan loo xam ne mën na yóbbu nit ki ci ak ci kéefër di fowee diine yàlla ji di nañ ko jël teg ko ci teg ci suuf mbokk mi na ragal yàlla bu baax ndax moo gën a xam ne mi def nay caaxaan la xam na ko bu baax ba fut jinne jàpp ko li dara jaru ko ci àdduna su doon jox milliard dina tabaxal ay milliers de daara wallahi azim la ilaha illa hu du la jariñ tous du la jariñ dara su fekkee ne caaxaan yi ngay défendre soo jàngaloon Sénégal ñëpp bañ mokk alquran nga wëlbatiku di weddi alquran di défendre ñoo xam ne la ñuy weddi mooy alquran ci ay caaxaan ci ay tappale wallahi du la jariñ dara ci borom bi pañootu àdduna jaru ko dara jaru ko motam tax mbokk bu nekk sunna war na fexe ba li li koy njëkk yi ci sunna Sénégal gi sunu àdduna bi mooy fexe ba sa diine nga sàmm ko perdre lépp bul perdre sa diine joxe lepp bam def sa diine desel joxe lepp bam def sa pass pass bul utiliser mukk diine pour sa mbiru bop lol yalla du ko nit du ko def lolu yalla dina ko weer ci kanamu ñëpp nuru du ko def lolu yalla dina feeñal cay lammeñam ay tiaxan ay foo fii kenn dofu fi ba nit ñi jappé nit ñi dañoo dof ken ëpp ken xel genn ay dóor la way li gëna a rek mooy du dóoree ci tur alquran wallahi da ngay gis ay ñoo xam dañu ay sëriñ daara la dóor yi policiers yi dóor moo gën ñu fuuf seen i dóor ndax ñoom alquran la ñuy dóoree ñoom caax ba kenn xalaat ci moom dëgg ñu ci ëpp ci ñoom wala ñu bari ci ñoom ñu duñ xalaat ñoom ñu ñu nekk ci dëgg dañuy xalaat ñoom ay ñii ay naxaat kan lañ waaye ku ñëw di ndaxee nit ci alquran lii la mu gën a nekk ndaxaat nit ci alquran ñëw di dina nga jàngal alquran su fekkee lii nga naan jàngal say taalibi sa daara waxuma la dimbali dañ ko a tëj ku ko jàppale ci daaraam fekkee lii la nar a jàngal ay ndongoom mi ngi jàppale nit ñi ci li nga xam ne mooy al ism al waaye jàppale ko ci birr wa ko fekk lii la nar a jàngale fekk ay wax yu lëndëm ay wax yu bon ay wax yu jël lu yàlla jagoo mu nit ki di ko jagoo mu ñëw di ko défendre ci lan dimbali ma ci lan mooy lan ça veut dire quoi mbokk su nit bu mu nekk war ngaa am def ni sa bopp mooy fexeel ba di dund bu dund au-dessus de tes moyens gis naa mbokk yu bari yuy inxiraaf di di di lewatal jëmale ci waa bida dara yóbbu leen ci lu dul dund au-dessus de leurs moyens te lu ci ëpp na gis ay daara ay tàmbale rek ku nekk da nga fexe bu dundu ci say moyens yem fa la yàlla yem lool soo ubbee daara nga dem ba daara mënatoo nga tëj ko nga tëj ko bañ a sonal kenn tey boo demee mën a ibbi suuf mënu yàlla teguloo ko nga wuti buntu yiw bari na mën ngaa jàngal ay nit alquran ci whatsapp du la dara dool fekk doo leen jox ñu doo jox ñu daan ngeen jàngal leen ba ñu mokkal kon yi ne ca caaxaan la ñu war a jël teg ko ci suuf lan daan dalee tasawuf ca jamono moom la ñuy ñu bari moom la ñu tàmbalee def laaj gu dul jeex dañoo jël mbir rek tàmbale ko rek ju tuddee ko neneen rek. laaj goo xam ne du jeex day gis ñoo xam ne dañuy boole si moom sunna li laaj léegi sëriñu tasawuf laajatuñ ko lu ñu laaj def ko métier presque métier ibbi ay compte bancaire di sol rek ci turu alquran riche waaye loolu yëpp sax na nañ ko toorale su fekkee dañuy bàyyi diine yàlla waaye su demee ba jël nag léegi sunna di ko di ko di ko di joggati sunna ɗi joggati wati sunna défendre beeɗa défendre wa waa beeɗa ngerlaani leesh fulan poñoto adduna pour ñetti deureum fukki deureum ñu lay jox pour sagu ci bu lay jox wallahu almustaan léegi gis ay théâtre léegi ay indi ay xale yu nekk fi tek fi xale nekk fi di joy di daanu ay daanu yoo xam dañ ko war a gisee daanu di mbek xale bo xamne dafa autiste gis naa ko fi ñu jël ko vidéo duggal fi xam mu autiste la am ñaan ah alquran ma sha allah ko am dañ ko dem yóbbu ko faji ko mënoon wax way day wax ñi di daanu mel ni kuñ mbëkk lii nañ ay caaxaan la ay caaxaan dong la du tuus ñëw ci li nga xam mooñ doxoon jóg ci ci vidéo bi te mbokk bi eh, tàbbi ci mooy caaxaan yu mi li muy jéem a ci vidéo bii nii mooy sëñ bi ay abiyat yoo xam ne da ko da cay ñaan yàlla suñu borom ne yàlla mu daat koy may kun fayakun su fekkoon loolu kese la musiba la lu wuteeg alquran ak sunna la mooy ñaan lu mel noonu sëñ bi kuy toppee nag ay li nga xam ne mooy ay qasaidam da nga xam ne li gën ndaw luñ ko mën a reprocher mooy i'tida fi du'a xeetu na muy ñaane na muy ñaane dafa bokk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bokk na ci mandarga mujjub jamono mooy ëppal ci ñaan mooy li gën a ndaw luñ ko mën a wax ci ay ci ay mbir bindam waaye mu ci sax loolu dafa delluwaat daal di xamle ne yàlla may na ko ko loolu daal di làmboog ay pas-pas yu bon yu dul jeex jiitu mooy yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom li nga xam mooy kun fa yakun dafa doon loo xam ne mbiram la moom moom rekk moo ko jeyoo kun fa yakun la muy tegtale la delloo mooy sumul mooy matale goo xam ne qudratullah sax da ko matale yàlla moom moo matale ci lépp kun fayakun nga muy dellu mooy ci tawxidu rububiya mooy moo xam ne ma xatir jiddan demul sax ci li nga xam ne moom mooy la mbir yi jullit ñi di werenteeg yéeféer yi wata yàlla suñu borom fa mu ko tudd ci alquran ñu ne ci juróom ñetti aaya ci alquran dañuy gis ne fa mu koy tudd lépp ci wone wane qudura yàlla sut borom la xawla wala quwwata illa billah lan ko loon nit ñu ko amee comme kun fayakun dara desut desutul dara comme kun fayakun naka lay doonee eh, eh, loo xam dañ koy ñaan yàlla sunu boroom day wax ci soo dem sut bokk dañ ne badiu samawati wal ard fan la jëm ci bind mooy ki nga xam ne moo bind as samawati wal ard mooy bind boo xam ne amut misaal saabiq badiu samawaat wal ard mooy li ñu tuddee création exceptionnelle yàlla rek moo koy def amul keneen ku koy def loolu wa ida qada amran su daal di dogalee mbir la lay wax fi innama yaqul lahu kun fayakun yakun yàlla day wax kun fayakun yakun création par le verbe mooy kalaamullah gi nga xam ne bis bu ñu jëloon asamaan wala jëloon garab yi yëpp ñu doon ay encre ñu ay ay ay plume jël li nga xam ne moom mooy géej gi juróom-ñaar yëpp daal koy def encre du jeexal kalimaat li nga xam ne mu baatu yàlla sunu borom du jeexal waxu yàlla sunu lu tax yàlla mooy kun fayakoon mooy lépp kun fayakoon lay bindee naka leen jëlee kun fayakoon moom loo ne mooy nekkal mbir mi na nekk nga ne mooy ñaan yàlla da lay may kun fayakoon mooy yàlla mu daal may léegi lu mu defal léegi loolu sax naka lay naka la nit ki di eggee boo xam ne danaan yàlla yàlla koy may lu ñaan yàlla mu may ko te nga xam yoon yeneen bi sallam ñaan yàlla lu ko mayul yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñaan na yàlla lum ko mayut musta taxaw am kun fa yakun su fekkone sa neen kun fa yakun mais caaxaan moy nit ki daal egg ci degré bo xamne da fay lu mu ñaan yàlla yàlla daal ko koy daal ko koy daal ko koy may nga loolu muy kun fa yakun ci nak leen kun fa yakun su fekkone ne la sax ndax loolu su nit dina ñëw di ko défendre ci go xamne ne du ab yeneen te ba muy wax loolu fekkut ab yonent di dund nga ne koy défendre yow nga ne loolu léegi noonu la amee num koy nu mu koy xamee ne kon yàlla defal na ko loolu te lu mu munti ñaan yàlla daal ko koy nangul kay kon dafay gëm loolu waa jii nii Abu Jandal léegi dafa a gëm ne. yàlla sunu borom jéggal na jami al wara ndax waa ji ñaan lool ne yàlla na na jéggal mbooleem mindeefi kon yàlla jox kon fay kon xalaas moom ne daaj taxaw daal di déclaré ci àdduna bi ne chrétien juif yi yéeféer ñëpp ñi yàlla sunu borom jikkoon leen ndax waa ñaan lool te yàlla dina ko may su fekkee yàlla may ko kon loolu muy nootee kon fay kon ana ñaan ak kon fay kon suba ñaane yàlla may ma xaw ma dem mudda Murtada affaire caaxaan yoo xam ne kenn xamul noonu defal publicité mu fay mu defar sama daara ji xaw ma lan léegi kooku jël na ma kon kayf yàlla naka lay jëlee allah mustaan sa demee ci suratu Ali Imran yàlla suma day wax tey qaala rabbi anna yakuni li walad ba tey yàlla fan la ne saal fii quduraam na muy bindee ci loo xam du jaar dara qaalat rabbi anna yakun walad su fekkee ne sëñ Tuba yàlla may na ko kun fekkoon kon na ñaan yàlla yàlla defal ko beneen asamaan ak suuf ndax ba diw samawaat mu am benn asamaan ak suuf yàlla daf koy defal moom moom ko ajib mu bind leneen kon lu mu bëgg a bind koy bind sëñ Tuba yàlla ci suratul surat al imran man ah, qaal rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar qaala kadhalika allahu yaxluqu ma yasha ba tey ci bind leneen gis nga yàlla mu ne yàlla yow naka nga may naka lay amee doom te man góor musuma laal بوز ما مريم يعلم منك ملك لك قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال بوك نتو نكو نكو يالا موم نكو نيه لي بيند موي لان باتاي كون كون فايكون فامي ديلو تي لان تي بيند كري اذا قضى امرا ساي بو دوغل مير انما يقول له كن فيكون ده مير بي نيكال مير ما دادي دادي نيك تي سوره باتاي ال عمران وإن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون يقول إن سموه مثل عيسى من مثل آدم بتاعي كلا نجي بند ما يلا ده بند آدم كي تراب لكو بند نكو نكال نلكو بند نكال منك ده هم يكون ده هم يكون فيكون موي day delu ci na yalla suma di bindé moy ki ay al khaliq dana yalla jox na keneen kun fa yakun moy yalla sun borom na benen khaliq ghayr allah ab sunni taxaw defendre ab yéfer sa bom xelu defendre kon nit waa jii nii ñëpp mën nañoo dem ki muy défendre mooy sëñ bi ñëpp mën nañoo dem ci moom ba muy dund lu ñu bëgg dem ci moom ndax moom kun fekkoon ko jox ne ko sëñ bi damaa doom mu ne nekkal am nga doom sëñ daa dem nga àjjana su ko neexee kay mu di kay mën nañoo gëm ne ñoom ñu àjjana lu ñu koy tax yàlla wax na kun fekkoon moom mu gëm lool ñoo di ko défendre la moo ko tooy doon murit dem jébbalu soo xamante ne waaye dem na kun fekkoon ne xam lu mu ñaanal ay taal ñu koy topp. yàlla jox ko te moom moo xam kenn du ko delloo sinon kon su fekkee ne loolu kon lan mooy lan nga mën a défendre Kun Fayakoun mooy lan kon lu tax mun a yàlla may na ko ànd ak ne Kun Fayakoun dafa bokk ci tasawuf dañuy wax ne bokk nañ li li ndaw li gis nga si lékkul sax xut ki wilaaya li gën ndaw ci wilaaya la Kun Fayakoun mooy koy woote woo sax dañuy di jàpp ne dangaa fekk fu rëy ah, aarifu ni de ay ree leen def ndax loolu mooy gën a ndaw ñoom يكون فيها يكون لك اي خمل نيك لوح محفوظ بوكني ميري غنا داو شي حبل ما يتصوف بوكني دغري غنا داو رام دي دافا تي لي دا بوكو تي تصوف ماي دي ووتو يكون فيها يكون نيكول مام موكو منو موكو مسووتو سوره بدي سوره الانعام يلا وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير باتاي كي لان لاي خالق يالا نعم مو بين اسمان السوف كي دغ بيس ما خام داي واخ ميري نيكال ني نيك يالا مو يور نغور ليب بيس باني وال كي بوفتو بي موي كي خام لي نبو نخ ليغا خام لي نعم موي يور كون فاي كون دا فا لامبو خام لو mooy dafay dellu ci lu nekkut nga nekkal ko na loolu foog mu ànd ak ilmul xayb su ñu saxal nit ku fi nga koy saxal ilmul xayb saxal nga ko qudra goo xam ne gu tolloo qudra yàlla suñu borom saxal ko li nga xam ne mooy bind na yàlla di bindee ba tey as-samaawaati wal ard saxal nga ko xam-xam gu matale ndax ku mën a wax lu nekkugut nekkal mu nekk kooku mënta doon lu dul ci xam-xam nga demoon yàlla mu tëjee aaya bi suratu al-an'am al-hakimul xabir aaya bi mu tuddi suratu naxl yàlla ne innama qawluna sunu wax li shay'in ida aradnaa an naqula lahu kun fayakun sunuy wax ci mbir boobu nañ koo bëgg lan lañ mooy lan mooy lu ñu bëgg a bind moo tax yenn jànkat jànkat yi comme kese yi dañ koy fa yakuunu gi da koy def koy nasu fa yakuuna mooy yàlla su fekkee dafay bind mu doon euh, atf ci euh, ida aradna an naqula lahu kun fa yakun mooy ci day nen la atf ci ci naqul lan lay tekki mooy su fekkee dañoo bëgg a bind benn mbir xam fi yeb day delu kun fayakoon yàlla bind gi mi bind mir nan la koy bindé par le verbe kun fayakoon wala mo sootu yasin la tuddu mooy inma amruhu sootu yasin la tuddu mooy inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakoon nafsu shay'an la idha arada an yakhluqa shay'an sa bëggé bind ben ben mbir da koy wax kun mbir ma dadi dadi nek فلما اشتوت مريم بتيال سنبون ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فلما يقول كون فيكون ما سايبو نيوه يال سنبون سايبو بكي دوغل بين نمير ما يدي دوغل كي نوغل كي بند لان لايهم بيربا كون فيكون نال قضى دابوكو كي مراتب القضاء والقدر الخلق ما سايبو دمي بإرادة قام mu bëgg bind mbir mi mooy dogal na ko léegi nag bi saabiq ilmihi mu ne mbir ba kun fa yakun te damay ci suratu xaafir ba tey mu aju ci li xam ne mooy ar huwa alladi yuxyi wa yumit mooy kiy rey di dundal wala mooy kiy dundal di rey fa idaa qadaa amran su demee ba daal di dogal benn mbir la wax mbir boobu fa innama yaqulu lahu kun jël mbir ma ni mbir mi nekkal mu nekk xam ne soo jëlee kon ay yi ñëw yëpp ci yàlla sunu borom ni mu yayoo mbir ma ba muy wax kun fa yakun da koy delloo lépp day dellu ci lan ci rububiya ci seigneurie borom bi mooy ki nga xam ne mooy mooy dogal mooy bind mooy dundal mooy rey mooy wërsëgale nga jot loolu yëpp daal ne am ne ko ko ku yàlla suñu borom boo jox sëñ bi su yemoon ci ñaan ko rek problème lay doon wax na mu wëlbatiku ne sax ma defal na ko far nit taxaw ne ñaan naa yàlla dara yàlla may na ma ko te la mu wax ne yàlla da ko may xayba la dañ ko koy weddi dañ ko ko nangul ludut mu daal ne wax yu ma ko moo ko la ko ko la ko xamee te wax yu mënu koo xamee ludut mu jugee ci yenent bi wala jóge ci yonent yi te ki mujjee yonent mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc nit ku su ñëwoon daal ñuy wax loo xam ne sax lu mën a nekk la far loo xam ne doon luwut ci di jël di xëccoog wala boog di jël lenn ci euh, di bokk ak yàlla dara ci nguuram gi fekkoon ne sa nit egg na wax na lu mel noonu ci loo xam ne gayib la rek mu ne yàlla nangul na ma ko daal di koy dogu ne yàlla daf ko koo nangul duñ ko ko nangul ndax dañuy xam ne mënut a dogu ci lu mel noonu lu wax ñu su fekkee lu ñëw ci xolam la mbir yu mel noonu kenn du ca dogu loo xam dafay dogalaan sa xol rek roog nag ko xam ne la muy wax ne yàlla may na ko ko dafay dellu ci rububiya borom bi dafay dellu ci yàlla ci bind gi mbind na muy bindee yàlla suñu borom na muy dogale yàlla na muy reyee dundale na muy nga daal di jël nga jël loolu ne léegi niñ koy defaree mooy lan léegi loolu mun naa nekk ndax yàlla borom moom moo lay may lan léegi da ngay suñu moo la wax loolu sëñ Mor Afine moom fan la la waxee ne moom li mu jublu fii mooy ñaan fan tappale ci fan la ko waxee caaxaan yu du jeex léegi mën na nekk tayib léegi su ma leen man léegi su ma taxee suba dana man may ne ma kon fee ko di ko nangu na koy nangu léegi danga ma koy nangul na ma koy dagg wala nga koy bañal kenn génnaatee feneen suba ne am ne kon fee ay ni di ko ci topp. da ko koy nangu dang nga koy bañal xaan parce que je sais pas ndax da nga allahu alam da nga bëgg ñu jox la dërëm wala da bëgg def daara mo tax nga ñëw di fooyee diina Yalla ci yooyu caaxaan la ko ron nak a plus day dem ci dem ci mbokk yi fa ñuy jéem leer lool nga jëw la ngeen di contrer ci xaan mbokk yi bi ma koy dénk du dénk sama bokk moy ragal Yalla suñu borom bañ jël diina Yalla def koy foofu wallahi responsable bi nekk sunu sunu lod lod sunu xam nuñ koy tuddee sax sunu ndodd yi xamuñ nu mu toll su fekkee ne dañoo dee te baaluñu bayuñu sunu waar ginnaaw lañ yàlla xamal ci tuut ci tawhid ñu jàngal ko Sénégalais yi waxatuma nag ñun léegi nag yemut au lieu ñu bay sunu waar ci leeral nit ñi tawhid ku nekk da nga mën léegi sagam loolu lañ cay def sax luñ ci def dañ ko war a xet te tiit ci karamu yàlla suñu borom de luy xaw Sénégal am nañ responsabilité ndax lañ waroon jaral ñu ko suñ ci dollee nag léegi nag dañ koy gàllankoor rek suñ delloo ci suñ ci delloo léegi ne dañuy jéem a dañ koy jéem a defaral seytaane mi ngi ñuy bëgg ndax fu tàmbalee bari ay nit ñoo xam ne dañuy wax say làkk lañuy ñuy làkk yor suñuy der ba pare di askanaloo fu ñu askanale ñun suñu bopp ñoo di defaan ay caaxaan ak i reer ak i neen والله المستعان